di ñaanal Maulana Cheikh Mouhamadul Muntaxa suma boroom gën ko fi yàggal lool te ma ànd ko wér ñoo leen di siyaare bu baax a baax ci jataay bi nga xam ne moom lañuy amal kuréel liggéeyal ku tedd gi ni nga ko xamee ni mu baaxoo waajale màggal gi su màggal gi jubsee ñu waajal ko ci euh, rabian safar ngir gàttanoo ko màggal gi lu jëm ci tasaare njàngalem sëriñ bi ak lépp lu aju ci xam-xam rek te jëm ci sëriñ bi ñu koy waajale màggal gi naka noonu itam noonu la baaxoo at mu jot muy séentu gàmm gi di ko waajale itam ci ay waxtaan yoo xam ne day aju ci dundu bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jot ñu di ko def ngir waajale ko gàmm gi e, ngir jàngat dundu bi yonente bi sallallahu alayhi wa gi nga xam ne dundam gépp ay bind la dundam gépp am njàngale la at mu jot itam ñu tànn ci aslëf loo xam ne des na ko mën a nafaraat def ko fi yóbbal ngir jàngate ko dundu Yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne moom la sunu borom royloo ci lépp am na waxtaan yu ñu jot a amal waxtaan yi bokk ci waxtaan yi nga xam ne moom lañ ci séentoo gàmm gi di ko waajale am yenn waxtaan yi yu ñu fas yéene amalaat ci kanam yoo xam ne lépp day jëm ci euh, waajal gàmm gi ak gàttandu ko ni nga xam ne noonu la ko kuréel gi baaxoo defe tey jii ñuy fas yéene ànd ak sëriñ Ahmadou Mbacke Daarul Muxti ci waxtaan bu am solo woo xam ne mu ngi jëm ci dundug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jëm ci ni nga xam ne noonu la sahabatul kiram niñ àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci worma ak i teggin ñu fa yéene koo jàngat muy tomb bu am solo boo xam ne dafa dëppoo ak jamono ji nga xam ne moom la ñu toll ci delloo nit ñi ci worma yi ñu war a sàmmoonte rawat na ci diggante seen seeni kilifa waaye ni ñu war a jàngee ci saxaaba yi teggin yi nga xam ne moom la ab jullit war a sàlloo te saxaaba yi ñooy ñi nga xam ne ñoo doon dund ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne moom la ñëpp war a roy saxaaba yi gën koo jege gën a xam dund ak bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne ay taalibe Serigne Touba la tam ñoo am ci sas wu rëy ci roy saxaaba yi ndax sëriñ bi moo waxoon ne ñooy seen i bàyyi ci diine kon euh, loolu mooy tomb waxtaane fas yéene waxtaane teggin yi nga xam ne moom la saxaaba yi amoon ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mooy teggin yi jullit war a am ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mooy teggin yi ab jullit war a am ci kilifa kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa lislaam yi nga xam ne ñoo fi doon yonte bi sallallahu alayhi wa ñu ni ma ko wax léegi ñu war ko ànd ak sëriñ Amadou Mbacke Darou Mouhty yaakaar naa du ku ñuy aajar koo xam ne des na ko présenté waaye ñëpp xam nañ ko ci euh, liggéeyal xam ak yaatal njàngaleem sëriñ bi ci biir réew mi ci bitim réew mi wala ñëpp yaakaar naa du koo xam ne dana aajoo ñu koy présenté moom lañu fas yéene àndal ci tomb bi incha allah kon sëñ Ahmad noo ngi lay nuyu bu baax te di la siyaare bu baax aoudu billahi min asheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al kalami rashidan wa murshidan <clears throat> wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar bu baax di siyaar itam sama sang su baax si nga xam ne tey ñoo bokk ci kuréel euh, liggéeyal ku tedd ki te yàgg amal jataay yu am solo ak ay liggéey yu am solo yoo xam ne ñu ngi koy def di ko taxawee ci biir liggéeyu sëriñ bi di sant bu baax ci ànd ak ñoom jataay yi di ñaan yàlla mu nangu lépp ci daraje sëriñ bi ginnaaw loolu ni ko sëriñ bi waxee rek nu war a amal jataay boo xam ne dañ ciy waxtaan jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba ya teggin yi nga xam ne moom lañ doon dundeek moom xam ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom a ko tànn fonkal ko boppam eh, defal def ci moom ay ay ay ay tawféex ak i melo ak i jikko yu rafet rafet waaye sotte ci moom xéewalam itam bëggal ko boppam itam loolu moo tax mu def ko muy sangu doomi aadama yëpp sayyidu wala di adama tànnal ko itam mm, njaboot gi mu feeñ nga xam ne yonente bi xam ne ana xiyaarun min xiyaar ñëpp di mas nekk ay jullit hmm. yoo xam ni eh, ak mooy yàlla ak ak ak lu sori ngëm hmm. da leen di mas di sori waxtu ne ni ko sëriñ bi waxee ca almashrabu shaafi hmm. waaye sunu borom mi tànnal ko jamono jëm wàcc wàcc fii fii ci xayru róon yi xarnu bi gën ci xarnu yi dëkkal ko itam ci bërëb bi nga xam ne suñu borom ne na moo gën a barkeel ci bërëb yi muy makkatal mukarram foofee la feeñe suñu borom tànnal ko sax tur ñi nga xam ne ñoo ko wër waajur mu góor tuddoo Abdullahi te xam ngeen dëkk ba xërëm lañ doon jaam ay Uzza ak Laata ak yu demee noonu mën naa tuddee Abdul Uzza am nañu ko tuddoon waaye mhm. waaye waajuram tudd Abdul Abdul mhm. Abdullahi mhm. waajuram jigéen tudd Amina bintu Wahabin yëpp am ay ay junj yoo xam ne mi ngi ci Euh, maamam ji nga xam ne moo jur waajur moom góor moom Abdul Muttalib keroog ba Abraha ñëwee bëgg a màbb kaaba kaaba gi dana ko lil bayti hmm. rabbun yaxmihi rabbun yaxmihi xam hmm. nga loolu wax la hmm. kon yonente bi day ko sell koo xam ne suñu borom a ko tànn euh, ci biir alquranul karim itam mu mu mu ko euh, sellal ko sellal léppam maanaam cëram yëpp mu tudd ko sellal ko ci misaal dañuy wax wax nañu ne aw làmmiñam làmmiñ wu sell la hmm. du waxi larax hmm. du wax lu dul noona hmm. du wax lu jubut du wax lu baaxut wa maa yantiqu anil hawa noonu la sellale itam xolam wax ne eh, maa kadabal fuaadu maa raa xol bi moom dëgg rek la ne jàkk te du jàng mukk du jàdd du xool lu dul noona du sori boromam du gis lu may boromam noonu la seddale itam sunu borom seddale itam ab gisam maa zaaxal basaru wa maa taxaa mhm. noonu la seddale itam eh, am xelam wax ne maa dalla saaxibukum wa maa gawaa mhm. noonu la seddale sax dégg nga maanaam maanaam maanaam am njàngam ak ki ko doon xamal mooy mhm. jibril wax ne allamahu shadidul quwa noonu la wax itam ne ay jikkoom itam mu mu ko ci moom ci mu tagg ko ci ay jikko mm-hmm. sellal ay jikkoom itam wax ne wa innaka mm-hmm. mm-hmm. wax ne wax ko itam ne wax ne itam ci alxuraan ne dafa leeral dënnam waaw duy ko ak leer alam nashrah laka sadrak yëkkati ko aw aw turam itam wa rafaanaa laka dikrak wax na ko itam mboolem la jiitu woon ci ay luñ mën a jàppee dégg nga euh, ab safaan mm-hmm. ak li ñëwagul lépp jégal nag ko mm. li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taaxar mm. inna fataxnaa laka fatxan mubiina mm. wax nu yitam ne maanaam sellal na léppam def naa ko ba mu mel na mu war a mel di aw tànneef woo xam ni mooy ngën ji roy teef wax ne dañ ci roy laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana li man yarju llaha wal yawmal axira ko teg ci kanam bindeef yëpp ngir mu nekk seen royukaay mm-hmm. waaw ak itam ci moom ak nekk moom yonent bi sax di xéewal gu mag ci biir mbindeef yi mm-hmm. ak ci biir jullit ñi mm-hmm. gis nañ suñu borom wax saxaaba yi ak ak jamono leen ak ak ba ci ñëpp rek waa Makka ak ñëpp leen wa maa kaana allaahu mm-hmm. li yuadibahum wa anta fihim wax ko bi ne li fee seen biir suñu borom du leen buggal maanaam kaaraange la ci biir jaam ñi am loo xam ne duñ ko seetlu waaye suñu borom àgg ci maanaam am na suñu borom dara waralu ko waru ko ci ak jaamu yàlla ndax moom la ñuy jaamu xam nga hmm. waaye am na genn jaamu yàlla goo xam nee da koy def hmm. mooy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi hmm. ya ayuha ne moom sunu borom ak mboolem malayka yëpp dañoo maase da nga di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa loolu loolu rëy rëy la jaam boo xam ni Eh, suñ borom a ko sàkk ni mu sàkk ñi ci des ñëpp waaye terale ko nag moom ci bawam muy julli ci moom dégg nga wax ko itam ne ko yónni gi mu ko yónni ci biir eh, maanaam mbindeef yi ak doomu aadama yi lam ca jublu mooy da yërmaande jum ëmbal jaam ñi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamina aalamina kenn génn ci du doomu aadama yi rek waaye mbindeef yëpp ndax alhamdulilahi rabbil alamina lépp loo xam ne yàllaa ko moom rek day dugg ci alamuna alamuna yooyu nag yërmaane ji leen suñu yërëm hmm. moo tax mu mu sàkk sayyidina muhammad yabal ko hmm. ci biir mi lebi moo tax mu digal nu itam ne moom lu mu leen jox rek na ngeen ko téye hmm. lu mu leen digal rek na ngeen ko def bu leen jiyoog moom mukk wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu àgg sax ci xupp ñi nga xam ne ñooy wuuteeg moom fa fal yaxdari alladina yuxaalifuuna an amrihi an hmm. tusibahum fitnatun hmm. aw yusibahum adabun alim waaw saxaaba yi itam gis nañ moo leen jàngal ni ñuy dundeek moom hmm. ne leen bu leen ko woo ni ngeen di woowee seen morom laa tajaalu duaa ar rasuli baynakum ka duaa yi baadikum baadan àgg ci wax nu ne tey eh, sëngam ngëm ngir mu ngir mu mat dëgg-dëgg faw nga nongul ko nongu ko mutlaq koo xam ne doo am genn tànn ci ci ci ci ci li nga xam ne moom lay diglee ko tere hmm. fala wa rabbika hmm. laa yuminuuna xatta yuxakkimuuka hmm. fi ma shajara baynahum thumma laa yajidu fi anfusihim xaraja mimma qadayta wa yusallimu taslima dégg nga def itam maanaam topp yonente bi mooy topp yàlla topp yàlla itam maanaam mënta sotti li fekk topp yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu wax na ko ci bërëb yu bëri man yutii rasula faqad ataa allah am na fa wax ne wa man yaasi llaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina loolu ak yi ni yi ni mel yëpp buñ ko gisee nag dañuy gis ne kon jaama ngoogu bu yàlla fonk bu yàlla teral bu yàlla euh, dégg nga ma maanaam taw feexal loolu nag moo tax ñu war a am teggin suñu digg ak moom waaw teggin yooyee nag maanaam saxaaba yi ñoom ñoo ko njëkk a dund ak moom mm-hmm. waaw warmaaloon ko mm-hmm. fonkoon ko mm-hmm. bëggoon ko te loolu ni ma ko waxee léegi suñ borom moo leen ko jàngal fi ne ci alxuraanul karim suñ borom yonent yëpp gis nañ léeg-léeg mu sàllalu leen fi ne tey gis mu wax ne yaa aadamu uskun nga xam da koy woo jaar ci tur nga xam ne da koy sàll dañuy sàllalu yaa nooxu ihbit mm-hmm. yaa ibrahimu arid yaa mm-hmm. muusa mm-hmm. inni stafaytuka yaa daawudu inna jacalnaaka xalifatan yaa isa bna maryam dégg nga yaa zakariya inna nubashiruka yaa yaxya xudil kitaaba waaye yonent bi moom amul fenn fu mu ko woowee ci alxuraan sàllalu ko fu mu ko woowee rek day day day wax ne yaa ayyuha rasulu day wax yaa ayyuha rasulu laa yaxzunka alladina yusaaricuuna fi lkufr wala mu ne ko yaa ayyuhal muzammilu hmm. qumil layla illa qalilan hmm. yaa ayyuhal muddasiru hmm. léeg-léeg mu tudd aw turam waaye ci biir de nga xibaar ak wax ju muy wax ba tudd turam waaye faw bu ko tuddee day lëkkale turam wi ak yónnee gi mu ko yónnee nga xam ne teraanga la wa maa muhammadun illa rasulun muhammadun rasulullahi wa amanu bima nuzila ala muhammadin kon suñu borom moo ko njëkk a jox war ma njëkk ko fonk fi ne suñ borom àgg na ci sax fi ne alquranul karim hmm. fi ne eh, sa maanaam yéefar hmm. yiñ koy tuumaal di ko ko wax di ko ko sikkale moom hmm. yonente bi suñ borom a leen di tontu waaw bañ waxee ne shaairun dafa ne wa maa allamnaahu shi'ra waaw di wax du ko ndax man ma maa ko jàngal te jàngaluma ko way bañ ne kaahinun dafa ne wala bi qawli kaahin bañ ne dégg nga dallun mooy dafa réer maa dalla saaxibukum la wax mhm. bañ ne majnoon mu ne wa maa saaxibukum bi majnoonin mhm. nga xam ne luñ ko tuumaal rek luñ ko wax rek yi suñ borom ci moom mhm. dégg nga mooy mooy mooy tont bañ ne innama yuallimuhu basharun dafa wax ne lisaanu alladi yulxiduuna ilayhi ajamiyun wa hada lisaanun arabiyu mubin nga xam ne suñu borom moo koy tontul mm, war ma jim ko warmaal ak fonk yi mu ko fa àgg na ci fi ne yonente yëpp ku fi masaa ñëw Mmh. ci jamono mmh. suñu borom dana la digal bala nga fay jógee mmh. na nga wax saw xeet ne kat am na jëmm juy waaj a ñëw yoo xam ni mooy ngën ji mbindeef te bu ñëwee na ngeen ko topp ndax ñëpp fi ne moom lañ doon jëmbal moom moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa mubashiran bi rasulin yaati min ba'di ismuhu ahmad Seydina Isa xam nga moo ci mujj moo ko mujj wax dégg ah, na ci mbooleem dégg euh, mbindeef yi maanaam ambiyaaw yëpp hmm. ambiyaaw yëpp wax nañu ne dajale na leen hmm. jël ci ñoom accord ku ci dajeeg rasulullahi mi sallallahu alayhi wa sallam hmm. sayidina muhammad na ko topp te fonk ko te jàppale ko wa ida axada allahu mithaqa annabiyina lama ataynakum min kitaabi wa xikma thumma jaakum rasulu musaddiqun lima maakum la tuuminunna bihi wala tansurunnahu qaala aqrartum wa axadtum ala dalikum isri qaalu aqrarna qaala fashhadu wa ana maakum min ash-shahidina fa man tawalla baada dalika fa ulaika hum alfasiquuna te ambiya yi lay waxal kon ku yàlla fonk la ku yàlla eh, wormaal la ku yàlla jox cër la moo tax nag kon mbooleem ñi nga xam ne ñooy wut yàlla tàmbale ko ci saxaaba ya faw ñu wormal yonente bi faw ñu fonk maanaam am teggin sa digg yonente bi mooy mooy mooy buntub jariñu ci diine Sëñ Tuubaa daa wax ne teggin diine bu doon ñetti xaaj ñaari xaaj yëpp teggin la hmm. am na fu mu waxee ne yàlla li koy maye teggin la hmm. àjjana nag jaamu yàlla yi moo la koy maye waaye yàlla moom la koy maye hmm. teggin la teggin yooyu nag ma nga ma nga ma nga tàmbalee ci sàmm teggin sa diggante sa borom ak sàmm sa teggin sa digganteeg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yonante bi ni ñu sàmmee teggin su ndigg ñoom mooy nongul ko nongu mutlaq bañ a amuk tànn mbaay xalaat ci ay waxam jiital léppam wammatu tam fi kanamam dégg bëgg ko itam bëgg ko amatub àpp hmm. bañ a jéem a wute maanaam benn sikk sakk ci hmm. waxam ak mbiram waaw bañ a jéem a am xalaatam ci wetu benn ay ay waxam mba mba mba mba mba mba lu mu digle mba hmm. ak lu mu lënt ci yow ak nu mu mën a nu mën a demee bu dee ci jamonoom sax suñ borom coom moo aaye nga nekk fi yonente bi di di wax sa kàddu maanaam féete kaw kàddoom loolu suñ borom wax ne laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi saxaaba yi la doon jàngal. Mhm. ne leen seen kaddu bu leen ko yëkkati mukk muy gën a kawe kaddoom. Mhm. te loolu la ci yéeme mooy da leen wax ne. Euh, wala tajharu lahu bil qawli ka jahri baadikum li baadin an taxbata amalukum. Mhm. maanaam si bu ngeen toogee fi yonente bi. di wax ca kaw. dégg nga seen jëf yëpp a yàqu maanaam loolu da yàq sa jëf yëpp li nga mës a jëf lépp ci lu baax day yàqu an taxbata amalukum waxut ne da ngeen am bàkkaar wala def nga lu xaraam. xam moo gën a woyof. waaye li wax mooy an taxbata amalukum wa antum la tashuruna mhm. seen jëf yëpp mën na ci jaar yàqu mhm. waaw toog toog fi yonente bi di wax ca kaw mhm. mel na ko toog sa morom nee loolu boo ko sa jëf yëpp mën na ci yàqu inna alladina yaxudduuna aswaatahum inda rasulillahi ulaika alladina imtaxana allahu quluubahum li taqwa ñi nga xam ne ñooy woyofal seen kaddu di wax ndànk ànd ak war ma nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne seen borom defal na leen taqwa tawfiqan leen taqwa mooy ragal yàlla lahum maghfiratun wa ajrun azim inna alladina yunaaduunaka min waraa'il xujuraati aktharuhum la yaqiluna hmm. ndax sàmmi arab yi lañ daa ñëw hmm. bëgg koo gis waaye fa mbedd ma la ñuy tàmbali naan ko muhammad hmm. génnal nangam loole nag la suñu borom aaye ndax dañ ko daa jooru yaa muhammad yaa muhammad suñu borom nag leen inna alladina yunaaduunaka min waraai alxujuraati aktharuhum la yaqiluun walaw annahum sabaru xata taxruja ilayhim la kaana xayran lahum wallahu gafuru rahim moo tax saxaaba yi ñoom foofii lañ nekkoon sayidna abou bakar siddiq wax na ne aay yooyu bim mu wàccee dafa wax ne man giñ naa ci yàlla ne maanaam euh, duutuma wax ak yow yonent bi da ko wax ne ko duutuma wax yow lu dama dama dama ko yalu waaw laqad alaytu ala nafsi ya rasulullahi alla ukallimuka ba'da al yawm illa ka axi siraar mooy yalu nga xam ne Seydina Omar nga xam ne doon borom kàddu moom hmm. waaye mujj na wax dëgg maanaam lu mu wax yonent bi da koy laajaat ndax ndànk lay wax ba ba la mu wax du ko wax ci kaw hmm. Hmm. mujj gi yonent bi def lu mu wax faaw mu laajaat ko am na ko ñu wax Saabit ibnu Qays Saabit ibnu Qays bi aaya bi wàccee moom daa jàppoon ne sax a xumb la lekk nga xam ne boo waxee jàkk ñëpp koy dégg nga xam ne bi ay bi ay yi wàccee daa mujj toog këram nangutu te ñëw fi yonent bi ba yonte mujj laajte ko ana saabit ñu ne ko ah saabit day moom aay yi daal <laughs> ginnaaw suñu borom neen laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi te kàddoom daa xumb nee na bëggut toog fu yow <laughs> maanaam di wax ay jëfam di yàqu moo tax dal neen nu mën mën a mën mënta ñëw hmm. ne yonte bi na leen dellu leen moom ko moom hmm. taxul ñuy wax nee ko lasta minhum nee ko yow ci waa ajana nga bokk hmm. yow bokkoo ci ñi ñi aay bi wax kon noon la noonu la demee kon a ah, sàmm teggin sa diggante dégg nga euh, nit keeg yonente bi rawatina saxaaba ya nañ ko doon dundee. Mhm. loolu ci diine la bokk. waaw mhm. ah, ci ci diine la bokk. Mhm. maanaam ñaawal teggin sa diggante ak sa euh, yonente sa sallallahu alayhi wasallam da cee bokk fi ne tey masalan njëkk rek tudd aw turam képp. te te waxoo sayyiduna xëy na am na ci diine ñoo xam dañuy aay hmm. loolu kenn gën dara gënu ko xorom <laughs> maanaam Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ ko waxul Sayyiduna xam keneen ku ñu wax Sayyiduna xam hmm. nga xam ne suñu borom ci moo ko a hmm. def ab sang mu wax ne ana sayyidu waladi aadama loolu moo ko wax ci ay bërëb yu wute wute waaw qumu li sayyidikum la ma waxoon mu say wa Saad ibn Muaz dégg nga waaye bokk na ci ñaawal teggin jekkee ka tudd aw Muhammad képp loolu duy teggin sa digg ak moom hmm. ndax suñu borom coom maanaam fi ne hmm. wóowu ko noonu benn yoon ci ci alxuraan hmm. te wax nañu itam ne laa tajaalu duaa rasuli baynakum ka duaa baadikum baadan maa ni ngeen bu leen ko ko woowee del wax rasulullahi fi ne saxaaba yi am ay yi ko wax sax tur wi dañu rasulullahi la ñuy wax wala ñu ne nabiyullahi wala ñu ne habibullahi wala yu demee noonu waaye duñ tudd tur wi buñ ko tuddee dañ koy booleeg ak màggal sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa waaw dégg nga mooy lii mag ñi laa def ci sëñ bi nga xam ne moom turu mag yi moom kenn daw ko nangoo tudd mm-hmm. fi ne kuñ ko tudde cheikhu naa lañ lay wax mm-hmm. wala yu deme noonu mm-hmm. wala ñu ne ku baax ki wala ku tedd ki seen kuréel gu am solo gi ni ngeen ko tuddee <laughs> mu ngoog waaye jëkkee ko rek jaar ci tur ba noonu loolu maanaam moo tax xaadi iyaat xam nga ci ashifa dafa wax ne maanaam aaya bi lu mel ne laa laa tajaalu du'a rasuli benn ka du'a yi ba'dikum ba'd loolu liñ ci déggee mooy dafa dañ ko war a war warmaal dañ ko war a wekk te dañ ko war a màggal moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw mhm. moo tax nag saxaaba kon mhm. ñoom ñu fonkoon ko dayo fonk mhm. maanaam mu gënal lu leen seen bopp lu ne def nañ ko ngir jëm moom daa roy ci moom ci lépp jiital ko itam ci lépp maanaam ñoom nañ fonk woon yonente ba ak nañ ko wormaale woon mhm. ak tegg ni doon doxeek moom mhm. nit dootul leen dab moom ci tegg man danaa wax sax ne murid yi jàmbar lañ waaye mënuñoo dab saxaaba yooyu <laughs> saxaaba mhm. jox ay misaal misaal yi mooy ci misaal fi ne xajatul wadaa duñ ko seetlu waaye yonente bi ba mu leen laajee ay yawmin haada xaw ma nañu ko tey tey la bisu arafa wala bisu nanga waaye bugg ñuy wax te loolu di juyoog dégg nga li yonente bi bëgg ñu tontu ko hmm. moo dañ ne moo tax dañ ñoom ñëpp dañoo maase ne ko allahu wa rasuluhu aalam xam nga xam nañ ay yawmin haza xam nañ ne bis bi moom hmm. tey la tey ban bis la hmm. <laughs> waaye xam nañ bis ba xam nga ñu ne allahu wa bi neen alaysa yawman naxri dégg nga xaa tey du bisu tabaski bi ñu ne ko ah moom la de mu tegaat ca laajaat leen dégg nga eh, ayu ayu shahrin weer wi wan weer la xam nga loolu ñëpp xam nañ ko waaye ñoom ñëpp dañu ko ne allahu wa rasuluhu alam mhm. yàlla ko xam ak yow mi di yonenteem mu ne leen alaysa dal xijjati mhm. ndax du dul xijja mhm. ñu ne ko axakay ah, alayhi salaatu wasalaam mu leen ayu baladin haada dëkk bii doon ñëpp ne ko allahu wa rasuluhu alam <laughs> nga duñ nangoo xam dara fi wetam xam nga nekk fi kanam ab sëriñ maanaam teggi ni ànd ak ne saxaaba yooyu ko jàngale mm-hmm. nekk fi sëriñ di jaay xam-xam loolu xam nga ko xam du ko def xam mm-hmm, mm-hmm, mu doog leen wax nag ne inna dimaakum wa amwaalakum wa araadakum xaraamun alaykum ka xurmati fi shahrikum haada fi baladikum haada seen deret yi ak seen der xam ne lu xaraam la nit ki ab julit deram alalam xaraam ci Eh, dégg nga deretam xaraam ci yow. Hmm. kenn warta tuur deretu ab jullit. Hmm. mi ngoog imaamul Buxaari. ñett hmm. li na ne eh, Asaib <coughs> ibnu Yazid nee na damaa mas toog ci jàkka ji. ne na ba nes tuut am ku ma aw xeer su ndaw. moo geesu muy Seydina Omar radiyallahu anhu mu mu ne ma kaay mu juñëw ne ma kaay bi ma ñëwee mu ne ma ñaar ñee di waxtaan fee ci jàkka ji kum doon ñum doon wool ma leen neen bi ma leen woowee bi ñëwee mu laaj leen waaw yéen fu ngeen dëkk ñu ne ko noonu taayif lan dëkk mën leen kon baax na bu ngeen bi dinaa leen duma tey duma yu métti ndax jàkk yonent bi ngeen nekk di wax ci kaw <laughs> sallal radiyallahu moo tax saaba na yonent ba tey bàyyi ma ma dagg hmm. ma ma adribu unuqahu daani adribu unuqahu loolu wax na ko ba tey yonent bi hmm. ah, nit ñëw ñàkkee teggin hmm. wala sàmm war ma waaw waaw moo tax foofu lañ nekkoon ci war ma yonent bi ci bëgg ko ndax war ma bëgg moo ko jur Mm-hmm. ah nit ki ak bëgg bu wéree rek faaw mu jur war ma mm-hmm. faaw mu jur war ma faaw mu jur yitte woo mm-hmm. faaw mu jur yitte itam ah, moo tax saxaaba yi noonu lañ meloon gis nañ kenn ci saxaaba yi soxna Aysa nee na dafa ñëw ba jàndoog yonente bi wax ko wax joo xam ne mu waxi daanukat la na mel jëg ne ko wallahi innaka la ahabu ilayya min nafsi giñ naa ci yàlla ne yaa ma gënal saa bopp mm-hmm. <laughs> wa innaka la ahabu ilayya min ahli wa mali giñ naa ci yàlla ne mm-hmm. yaa ma gënal samay samay waajur mm-hmm. gënal ma sama alal gënal ma sama njaboot gi ak mbokk mboolem ko ma mas a xam ci kaw ne ko wa ahabu ilayya min walade sama njaboot yaa ma leen gënal yow laa gën a bëgg ci ñoom la akunu fil bayti fa adkuruka fa ma asbiru hatta atika fa andura ilayka wa ida dakartu mawti wa mawtaka araftu annaka ida daxalta aljannata rufiata maa annabiyina wa inni ida daxaltu aljannata xashitu an laa araak yow daal mm. yaa ma gënal lépp mm. bu ma nekkee ci kër ga nag ba sama xel dem ci yow rek damay mën a ñëw teg la bët sama xol sedd sama xel dal waaye damay léeg-léeg rek ma tiit tiit ne bu dee yowmal xiyam wóor na ma a yow fa ngay nekk dana kawe kawe ndax ca yónte ak ñu baax ña ngay ne te man xam naa fa may nekk kenn xamu ko ma tiital waaye yónte bi tontu ko xam nga loolu amul tontu wax jooju waxi cofeel la yoo xam ne mm. amul tontu waaye suñu borom ci moom daa wàcce aaya mm-hmm. daa dalal xelu saxaab yi boobu ne ko mm-hmm. ma yuti illaha wa rasula mm-hmm. fa ulaayika maa alladina anama allahu alayhim mhm. min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihin mhm. waaw maanaam koo xam ne yaa ngi ci mhm. bëggug yonante bi di topp ndigalam bàyyi teram dégg nga faw fu mu jëm te nga bëgg ko bëgg wér nee na foofu teg tànkam nga teg ko tànkam al mar u maa man ahabba wax na ko ma anta maa man ahbabta wax na ko ay sa ci yeneen moo tax xaadi iyaat nett na ci yoo xam ne sax fi ne buñ koy nett li doo ko doo ko mën fi ne wax na ne <clears throat> ñoom fi ne ci misaal usaamatu ibnu sharik usaamatu sharik <clears throat> usaama ibnu sharik eh, imaamu nasaayi ak abu daawud ak ibnu maaja yëpp nett nañ ne wax na ne mas naa ñëw ci yonent bi nee na ataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu xawlahu dégg ala ruusihim tayru nee na damaa ñëw ci yonte bi fekk jataay bi mu toog saxaaba yi toog waaye nee nag ka ànd na maa dafa mel ne saxaaba yi kenn ku ne am picc moo toog ci sa bopp te bëgg ko mu naaw hmm. nga ne dëgg <laughs> ka am duñu raf <laughs> xam nga loolu boobu àggagun fa <laughs> boobu yar nga xam ne te loolu Usaamatu du koo xam ne dañuy ñëw xam nga dañ ko def ci ay jamono rek bàyyi déet lii dañ ko dëkke woon kii moom dafaa ñëw mm. ci ci ci jataay ba rek fekk dañ fa ñu mel noonu mm. nee ñëpp ne tekk mm. ne dégg kenn yënguwut kenn rëfut mel ne am picc daa toog ci sa bopp te bëggoo mu naaw xam nga loolu moom boo yëngoo boo neen ku yëngu benn yëngu rek mu picc ma naaw xam nga <laughs> ne noonu lañ mel xaadi iyaad nett na ne àggoon nañ ci buñ dee fëgg bëtum yonte bi dégg nga seen wey yi lañ koy fëggee. Mm-hmm. ndax bëgguñu ko déranger. Mm-hmm. <laughs> bëgguñoo xam nga fëgg bu xomb. <laughs> muy muy mett ci noppam. loolu la ñuy bañ moo tax seen i we. Mm-hmm. neen la ñuy fëggee. ngir mu xam maanaam comme ci yónni nga ñëw war ko eh, maanaam eh, maanaam nettali. wala nga war ko wax lam la yoon wala yu demee noonu. buñ ma saa toog fi moom it xam nga duñ bëgg a jug moom yonente bi moom jotaayam mooy jotaay bi gën a neex gis a yonente bi janloog moom kanamam googee moom dara melut ni moom xam nga mm. waaw sallallahu wa sallam suñu sëñ samsan mm. Mm, nu ko mm-hmm. uh, wax nabi yi nabiyun jëmmalallaahu daatahu wa axlaaqahu loolu hmm. maanaam xar kanam booy moom moom hmm. waxtaan nañ maanaam sëñ moom wax na ci lu bare bare bare ak jëla samsan mux ji lan badara yi waaye nag moo tax nag ñoom wal wajhu maaxil xuma mi waaye xar kanam boobee xaw hmm. boo seetloo saxaaba yi ñoom mos ñoo bëgg mën a teqale ko moom moo tax fi ne alxuraan gis nañ mu wàcc leen wax ne yéen maanaam bu ngeen toogee fi moom nag hmm. bu leen toog rek wëy hmm. <laughs> maanaam léeg-léeg hmm. dañ koy bàyyi mu noppalu dégg nga laa tadxulu buyuuta nabi illaa yuudana lakum bu leen def fu ngeen ñëw siyaar si kon day war a am waxtu yoo xam ne day nekk ci leneen dégg nga illaa i lakum ilaa taamin غير الناظرين إناه ولكن إذا دعيتم إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي fa yastaxyi minkum xam nga alxuraan <laughs> gis nga suñu borom ni mu koy ni mu koy nga xam ne moom moo leen di jàngal ni ñuy defek moom bu ngeen fi ñëwee ci moom daal yitte ji leen tax a jóg na ngeen ko dox te dem may ko nag mu dallu ndax mën na leen rus du leen wax dara te waaye yàlla moom xam nga wallahu laa yastaxyi min alxaq gis nga keroog bi mu bi maanaam bi ñu jógee Makka dem Madinal Munawwara dégg nga xam nga booba Baytul Muqaddas lañ doon jublu xam nga xam ne bañ demee bañ nekkee Makka moom dañ daa jublu ci Kaaba gi boole ko Baytul Muqaddas waaye bañ rek baytul maqdis te kamba maanaam xibla googu mooy xibla gi yaxoot yi yonente bi xam nga bëgg nañu soppil ko xibla gi muy jublu mag hmm. waaye waxu ko suñu borom day hmm. def léeg rek mu xool asamaan hmm. ne ca la ay gis suñu borom dana ko qad nara taqalluba wajhika fi samaa'i fa lanuwalliyannaka qiblatan tardaha anta <laughs> tardaha maanaam maanaam qibla <laughs> fa nga bëgg a jublu rek <laughs> léegi day leen jublu foofu xam nga loolu seen moo tax moo tax mbir yi noonu demee moo tax saxaaba yi itam loolu lañ xamoon xam nga yonente yi moom mhm. dañ xam ne kii jaamu yàlla bu yàlla sellal am ko mhm. sëñ Tuubaa nee na bihi bunil arduna wa samaaw xam loolu loolu di caaxaan hmm. maa asamaan ceeg suuf ceeg lépp hmm. wa xuliqal hmm. wa xuliqal rijaalu wa nisaaw na bihi bunil arduna wa samaaw moo tax kon saxaaba yi noon lañ meloon ci moom wax na ñoom fii ne tey eh, maanaam eh, urwatu bnu mas'ud saqafi ci saxiixu buxaari xam nga nekk li na ne boobu mu ñëwee ci yonente bi lii mi ngi ci saxiixu buxaari ak yeneen saxaay loolu masul sax fi ba ñëwee day dafa wax ne dafa dem ca waa Màkka di leen wax ne kat keere na ma leen gisee hmm. ñu fonke ko ko mosuma gis kuñ fonke noonu ci kaw suuf te man hmm. dem naa ci buur yu bare bare bari hmm. ne fa wallahi ma tanaxama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama nuxaamatan illa waqaat fi kaffi rajulin minhum fa dalaka biha wajhahu wa jildahu ne damaa fekk bu bu xaaxtani ko xam nga tanaxum mhm. mooy xaaxtani ko bokkut ak tifl yi mhm. <laughs> bokkut ak tifl yi mooy mhm. xaaxtanu nekk boo defee neen du àgg suuf faw ne na ci tënku kenn ci ñoom lay dal ndax dañ koy njëkkante bu ko dee la muy njëkk a def kam ci moom moom <laughs> day jàpp ne am na xéwal gu rëy da ko daal raay ci xar kanamam rek ak ak yaramam <laughs> foo dalaka bi ha ah. dégg nga waccahu wajil wa ida amarahum ibtadaru amrahum nee na comme ci digal it nee na da ngay daw doo doo doo doo doo doo la yàkkamti wa ida tawadda a kaado yaqtatiluuna ala waduihi hmm. nee na bu jàppee tam dañuy xaw a rayante ngir bëgg kenn ku ne bëgg a barkelu ci njàppit mi hmm. xam nga loolu noonu agagun ci waaw ah, te lii mi ngi ci Buxaari Sahih hmm. Buxaari ak Sahih yëpp nga xam ne xadis moom kenn weddiwu ko xadis bi mu teg ca ne wa ida takallama xafadu aswaatahum bu waxee ñoom ñëpp dañ koy diglu te kenn ku ne tam day wàcc kàddoom fi wetam wa maa yuxidduuna ilayhi nadara taazim la woon nee na duñ ko xool jàkk itam hmm. dañuy dañuy damm seenum gis fi moom hmm. ngir ngir warmaal ko ak ngir màggal ko kon saxaaba yi hmm. foofii lañ nekkoon ak moom waaw waaw nga xam ne Seydina Anas ibnu Malik radiyallahu anhu wa ardaahu wax na ne imaamul muslim moo ko nett li wax ne fekke naa bis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga di watu bi muy watu nee na saxaaba yi wër ko mhm. saxaaba yi wër ko nga xam ne nee na wenn kawar mhm. rotul ci suuf si mhm. kawar gu root rek den root ci loxol tenkul benn waay mu téye <laughs> <laughs> den ci kii gis nga Xaalid ibn Walid nga xam ne jàmbaari lislaam jooju sayfullahil maslul ci yow yow mul yemaama yaakaar na wala yow mul yarmuk gis nga maanaam maanaam mbaxana mi moom kawar ak yonente a da cee def ko ci mbaxanaam nga xam ne hmm. nee na moom mosuma dugg xare boo xam ne moom gañewul gañewul hmm. xare boobu nag xam nga mbaxana ma daaroon mu bàyyi lépp di wër mbaxana mi di ko seet bañ na ko jaagi gars yi di ko ma den mbaxana mi kat <laughs> mbir da cee ne sax kawar gu yonente ba sallallahu alayhi wa sallam da cee ne <laughs> soxna umu salama Buxaari nett na na a a hmm. hmm. hmm. bu dee mu jël kawar gi xooyal la ko ba <laughs> nga naan mu tane sallallahu alayhi wa sallam moo tax kon foofu lañ nekkoon ci fonk ko ak wormaal ko hmm. gis nañ Seydina Aboubacar Siddiq hmm. radiyallahu anhu nga xam ne moom keroog ba mu ànd moom di hmm. di di gàddaay ca xuntima nga xam ne moom xuntima xam nga dafa xaaru xaaru sawru dafa dafa dafa ay sori ca kaw te boobu yonent bi sonn na waaye wax nañ da koo boot ba àgg moom ci kaw comme ñooy itam dafa ci biir pax bi wër ko mboolem bën bën yi fi ne mu sakk la dagg dagg sakke ko bi yonent bi eh, kii itam mu lalal ko mu tëdd te nga gegganu ci ab luppam hmm. fi mu toog mu séen maanaam menn pax moo xam ne sëkkuñu ko mu teg fa tànkam ndekete jaana fa ne jaan ji cof ko moom Seydina Abubakar hmm. waaye gis nga bëggut a raf sax hmm. ngir di ko yee ndax boobu yonent bi sonn na dina la ko nee bi ko jaan ji cofee cofaat ko nag ba métti bi kii nag ronkoñu gi Seydina Abubakar moo tuuru dal ci lexub bi sallallahu bi daal di yeewu hmm. ko lii lu mu doon mu ne ko <laughs> jaan ji moom waaye da ko jot <laughs> bañ xëyee xam nga loolu guddi la xam nga ko sa buub mi mu ne ko buub mi moom laa sakki paxay hmm. <laughs> moom laa sakki paxay mi nga foofu lañ nekkoon ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam hmm. fi ne xaswatu Uhud am na soxna suñu nettali soo xam ne moom it ku ku doy waar la Ibnu Isxaq nett na ko ak Bayhaqi ñeneen mooy soxna si moom tey maanaam ci xare boobu magam ki mu bokkal bàyyi daa faatu jëkk borom këram faatu ci hmm. baayam faatu ci biñ ñë biñ demee ci xare ba dëpp hmm. mu ñu laaj ko mu laaj jëkkëram maanaam mu laaj leen ana ana ana borom këram. Mhm. ñu ne ko faatu na. Mhm. ñu ne ko mu laaj bàyyam ñu ne ko faatu na sa sa mbokk ma sa rakk ja xaw sa mag ja mu ne leen ñu ne ko faatu. Mhm. mu ne yonte bi nag moom nu mu def. ci jàmm mu ne alhamdulilah ginnaaw yonte bi daal dara jotu ko rek. alhamdulilah xam nga foofu <laughs> la saxaaba <laughs> nekkoon. ci ci ci ci ci gis nga Zayd ibnu ibnu Dasinata. bi ko waa Makka génnee doon ko faat. nga xam ne moom booba dañ ko génne ngir ngir faat ko ci àll ba ngir rey ko mhm. waaw maka dañ ko jàpp booba mu leen may leen moom ma julli hmm. ba noppi na ren day julli gi doylu ma ci waaye damaa xam ne bu ma wéyee di julli da ngeen xam da ngeen jàpp ne damaa ragal hmm. foofa xam ko laaj ne ko yow hmm. xanaa fi ne de moom <laughs> a caw a faat moom mu ne ko xanaa boo sa yoon de moom fii nga ne dangay ngay nekk sa kër ca sa njaboot ak say xale ak say gone Muhammad sa waa nekk fii mu ne ko yow de xamoo li xew man de foofee Seydina Muhammad nekk maanaam waxuma la dara di ko jot waaye ak dégg sax bëgguma mu sekk ko foofee am jàmm <laughs> maanaam faatu ay yoon yoon waaw moom moom a gën a lool mi ngoog kon gis nga Seydina Amr ibn al-As hmm. bi muy waaj a faatu <clears throat> tey wax njàqare lu mu am Mm-hmm. tiit gum tiit ci ëllëgam ak mm-hmm. yooyu doom ji Abdullahi da ko wax ne ko waaw mm-hmm. yow looy tiit ndax gën a gisoon nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ah, doom am na loolu ëmp de yonente bi day nekk na maa moom lu yàgg waaye sama bët de mësta suur ci moom maanaam mësuma eh. ma laajoon ma ndax mosu ko mosu koo xool jàkk eh. fi ne tey ñi ñi misaal yonente bi ñi la ak kan ak ak ak Hind ibnu Hind ibnu Hind mm-hmm. rabibu rasulullah sallallahu alayhi ñett nit ñeent daanaka ñoo ko misaal mm-hmm. kenn mosuñu ko mën a xool mm-hmm. <laughs> foofu lañ nekkoon kon kooku mooy Seydina Muhammad sëñ bu mag bi nag moom moom moom moom Seydina Muhammad moom gis nga <laughs> moom mooy léppam na ko fonkeek na ko war maale moom nit dootu ci àggati moom gis nga loolu yi mu waxoon maam Cheikh Ibrahima Fall ne ko maanaam man day bu ma gisatoon dara lu bokk ci yonente bi mhm. ci lu may ne maanaam wóor na ma ne biddiw yi mhm. moom yonente bi daana xool di ko gis rek mhm. a nga xam ne fekk <laughs> ma fekk moom lu ko a ma bëgg mi ngok kan foofu da nekkoon mos ta ndongo itam dara yonente bi moom sëñ mag moom waaw sëñ moom gis nañ am na li mu wax euh, Musaylimatul Kazzab hmm. ci moom rek lañ ko ma a gis hmm. wax ko ko hmm. wax yoo xam ne moom sëñ waaye kenn ci mag ñi da ko ne mu wax ju mel nii da jàpp nañ ne yow doo ko ma ne leen nag ko xamul war mee sama sang ba doo xam war mee sama sama xalima doo xam ci war ma <laughs> mi ngoog tabban liman ankara kawnal muntaqa muhammadin xayral baraya mutlaqa mhm. nga xam ne day móolu moom koo xam ne jëpp ko ne mooy ngën ji mi néew nee na yow tuskare yow <laughs> tuskare nga <laughs> ngoog yàlla yàlla defal tawfeex kon mhm. kooku mooy mhm. ci ñi nga xam ne dañ ko war maal dëgg dëgg war ma ànd ak moom ci teggin ci buñ tuddee aw turam ak ak maanaam lépp loo xam ne ay waxama nga war maal ko ak itam maanaam di julli ci moom sallallahu alayhi ak fonk ko hmm. maanaam bis yi nga xam ne dañ koy jàngale ay siiram hmm. yëpp ñu fonk bi hmm. ñu fonk ci dolli ko nga ko salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa am na solo yaakaar naa ñi teewlu ñëpp doyaluñ ci waxtaan yi tënku na itam te nañ ci dëgg-dëggi dayab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni ko sunu borom tànnee ci tànn ko muy tànneef moom ni mu ko waxee hmm. waaye itam cëram yëpp bu ko tuddee itam moo wane ne lu suñu borom tànn la lu mu barkeel la warmaal ko lool ci alxuraanul karim ci def gim ko def mu muy yërmande ci mbindeef yi waaye tagg gi ko tagg ci alxuraanul karim ak julli gi mu julli ci moom nga xam ne bu doon jaamu yàlla ko suñ borom di def da ñaan mooy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa waaye itam wormaal ko ba ni nga waxee doo gis mukk muy tudd alxuraan di wax yaa muhammad nga xam ne day mel ne kon jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndayoom ak maqaamaam ak wormaam sunu borom ci boppam moo na ko jàngal hmm. moo na ko xamal itam moo ko jëkk wormaal itam doon gi doon tànneefam di gën ci mbindeef yi di ab soppeem waaye wan wan suñu borom wan nañ ci alxuraan fonkeel gi ak yëkkati gi ak worma gi nga xam ne moom la ko suñu borom def ba muy worma muy loo xam ne moo ko jàngal mbindee fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam suñu borom jàngal saxaaba yi ànd moom nu ñu war a àndeek moom hmm. ak ko war nuñ ko war a wormaale ba yegg ci buñ ko waxee loo xam ne wareesu koo wax moom ci boppam moo mooy tontul boppam alxuraan karim mooy ñëw tontu hmm. ne du noonu boobu yonent bi sallallahu alayhi defee loo xam ne sax alxuraan daa ñëw wax ne neen nga waroon def hmm. day mel ne suñu borom day ñëw ne ko jéggal naa li nga def ba noppi doo ko wax ne nangam ak nangam xafallaahu <laughs> hmm. anka li ma asinta lahum hmm. doog ñëw ne ko wax nangam ak nangam ak nangam lëkkale aw turam itam ak tur ak turam xam ne foo tuddi suñu borom rek teg ci tur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon day mel ne jëmmi dayoo moom suñu borom xamle na ko ci alxuraan bu baax waaye itam jàngal na saxaaba yi li nga xam ne nañu war a ànd moom ci di wax ak moom ndànk di ko bañ a jiitu bu ñuy dox hmm. di bañ ñëw ci moom te woowu leen bu leen woowee itam buñ ñëwee ci moom bu yitte ju noppee ñu mañ faa toog di làng waxtaan mm. ak yu ñu demee nga xam ne daal war ma ji ko war a jox moom alxuraan karim tudd na ko saxaaba yi itam mm. fonkoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci wormaal ko ak jox ko dëgg dëggi dayoom ci ni ko waxe mm. nga xam ne daawuñu wax ak moom ci kaw bi alxuraan wàccee waaye itam amoon war ma ci amoon war ma ci moom daal ci anam yëpp fonkoon ko itam fonkeel koo xam ne lañ ca jiitu doon mooy mooy mooy jaay ko seen bakkan mooy joxe seen bakkan mm-hmm. ngir jote ko bakkan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mm-hmm. ko waxalee ku dem ci xaswatu Uhud mm-hmm. am na xam ne bi xare bi jeexee fekk nañ ci seen ginnaaw lopp juróom ñaar fukki jam-jam te dara te dañoo taxawoon ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàllal seen ñaar loxo rek lu ñu nar sànni yonent bi dal seen kaw nga xam ne jote ko seen bakkan lañ lañ jëkk def loolu itam ci warmaal ko ak xam ko waxee ci mboolem jotaay yëpp nga xam ne ni ko euh, Abdullah ibn Mas'ud daan daan waxee nga xam moom bokkoon na ci ñi nga xam ne hmm. ñaan ngàbb dàll yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ma yonente bi masaana toog day jël dàll yi roof ko ci loxo yi nga xam ne du nangu kenn dal ko yonente bi jigéen ma kon mel na ne war ma ji nga xam ne moom la saxaaba yi amuloon yonente bi sallallahu wa sallam ñu ko hmm. Hmm. na jàmbaar lañ loolu waaye mel na ne yëggu yëggaguñu fa te itam eh, li taxoon bi da wax ne saxaaba yi ñooy seen i bàyyi ci diine mel na ne ko diglu waxtaan wi dangay gis ne leer na ci bu baax a baax xëy na eh, alhamdulilah rabbil alamin sëñ bi dimbali nañ ci ba teg ñu ci yoon wa saxaaba yi jaaroon ñu ngi ñaan war ma li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boobu ngi niroo ñu ngi koy jëm mm. ndax li nga nettali ci eh, hajjatul wadaa mm. bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di laaj ci waxtu wi ñu nekkak ak ñu nekk ak jamono yi ñu nekk mm. boobu xamoon nañ lay tontu la waaye bëgg ñoo wax lu juyeeg lam jublu moo tax ñu ne yàllaa ko bi yonente xam loolu itam mel na ne bari na luñ koy nettali ci diggante mag ñeeg sëñ bi ah, léeg-léeg muy laaj loo xam ne xam nañ tontu ba waaye day day bañ a wax lu juyeeg la mu jubloo la mu jubloo wax mm-hmm, mm-hmm. kon ca dëgg dëgg ñu ngi sant bu baax a baax ci waxtaan yi am na solo lool wax dëgg yàlla xame nañ ci bu baax day bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak niñ ko war a gën a warmaale rawatina ci bañ koy sallalu di ak itam di saxal dàkk ci julli ci moom te la jiitu ci warmaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak topp ko ami teggan ci moom mooy nangu koo topp nangoo jaar ci sunnaam nangoo jaar ci am am njàngaleem mm. boo demee ci téeréb euh, Hamad bun Hasan bi day wax ne mm. bi mu ci baab bunt bi mu tuddee al mu'jizat tey nett li karaama yi sëñ bi def ci gànnaar hmm. dafay wax ne bi mu ci tolloo hmm. mboolem naar gànnaar yi nga xam ne fekk gisoon nañ sëñ bi ci jamonoom hmm. ak ñi nga xam ne gisuñ ko woon waaye seeni waajur gis na ko bi mu leen laajee gan karaama ngeen xam ci sëñ bi ci gànnaar gu gën a rëy hmm. nee li ëpp ci ñoom lañ ko wax mooy ni mu topp woon yonent bi wa sallam ba mel ne koo gis ah, waaw ba mel ne bu mel ne koo gis xarfan bi xarfin loolu mooy li ëpp hmm. kon li ëpp ci warmaal yonent bi sallallahu alayhi wa la ci hmm. mooy nangoo topp sunnaam nangoo topp am njàngale ñu sant bu baax a baax di la gërëm di sant bokk yi nga xam ne ñoom lañ doon àndal jataay bi euh, kon ni ma ko waxawoon ci njëlbeen rek jataay yi benn la ci jataay yi nga xam ne moom la ñuy waajalee guddi gu mag gi nga xam ne moom la ñuy seenu muy guddi gàmmu di guddi gi nga xam ne ci la sang bi feeñoon sallallahu alayhi wa sallam ku te liggéey ku te di ko ànd ak yen ngir gën a eh, wane tasaare rek njàngalem Serigne Touba la ko ci dundug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu